xaal ba mu yor xaal manqué na jamono ji fi ñu toll nii lii ngi noonu yenu xaal ba baadu ko toj xaal ba lan la def lii ngi noonu Ousseyn ñu reporté ko tuuti Ousseyn doxalal Ousseyn arbitre baa ngi laaj ay gisam combat baa ngi dox ci Liss Ndiago Thiatou Rebeuss nee na Liss wala boog Thiatou Rebeuss ëlbati li nga takk sa bopp bi téere ba Liss am na maa ngi fi ak Abu Abu ci diggante Liss Ndiago Thiatou Rebeuss boo xoolee combat wu xale la ñoom ñaar combat bi ku nekk am na fu mu la war a mën a ku ci daan rek di nga sànni karawaas daw dabi ci say moroom parce que boo xoolee booy ak mañi kayre ak Jacob Balde ñoo di gën a pare ci lamb Balde ak Madiaye Kaïré dañoo xaw a raw tuuti ci lamb parce que ñu ñaar ñëpp dañu amoon ay défis yu leen gàllankoor mais combat bu bu bu nar a neex a ngi nii Ousseyn doxalal. mbokk yi gis a ngi noonu espoir la xale yaa ngi noonu ci digg géew bi ñoom ñaar seen signature ba xas-xas loo nañu. ku ci nekk wax jox sa morom Liss Thiatou Rebeus Liss Ndiago à gauche Thiatou Rebeus à droite xale yaa ngi lewaatoo di demee wet Thiatou a ngay demee wet waaye Liss cokkaas na léegi dalul eh Liss daw na Thiatou Rebeus daw na jël Liss Ndiago Thiatou Rebeus jël na Liss Ndiago Liss Thiatou ngay doon ci suuf. wala boog Liss Ndiago ngay dóor caat añ na ko Liss rasura ci ñaari tànkam xale yaa ngi noonu abit bi am na lu wax Liss Ndiago caat rëbës xale yaa noonu xolom mbokk yi supporter yi yuuxu ku ci nekk yaa ngi ne di seedaan

Liss Ndiago Thiatou Rebeus waaye Thiat moo ngi ne di ko déglu Liss a ngi doon ay bekki lu sew ci suuf Liss Ndiago Caatu Rebeuss Liss Caatu Rebeuss Liss Ndiago mooñ féete à gauche Caatu Rebeuss féete nu à droite eh Caatu Rebeuss fàq na ko Caatu mbot na laay xale yaa ngay bëre oh daan na ko waa ah, daanu ko ko oh. Liss Ndiago daan na Thiatou Rebeuss Liss Ndiago daan na Thiatou Rebeuss oh xale yi bëri nañu Thiatou Rebeuss démérité Liss a noonu bas nañ dem Liss a noonu di ko andee ay supporteram bàyyi ko lamb noonu la. Caatu Rebeuss jël bi da koo bett caata ngi noonu lamb la. Caatu Rebeuss daanu mel ni yaa daan. Liss a ngi noonu tey lamb Liss wane te ne beneen xaa kanam. ma gën maa fa gën a nekk bu ndaw mbër yëpp jàmm laa lay yële te moo seen ñu bay am jàmm. yee ñoo ci combat bi ñoo ci combat bi. combat bii nii maanaam bu ma leen dëgg lan laa la waxoon kii bu ma jàppee cin tàkk ñu ma war a bëreel nekkul booy. fi mu doon suur na. yee era cin tàkk na. era boo dañuy reer ba suur. mais mais bëri liis. di fekkee si la di di ñaanal si la yàlla ndam. di ñaanal si la yàlla ko yàlla may non suñ combat la ñu ñëpp. ñun jàmm nga la ñu am. na nekk mbër mu ndaw nekk biir jàmm gën. dama dem duubee la. di la ñaanal yàlla bu ñu làmmiñ doon kat. waaw nit ana fan nga teg sa bët ci kaw. ma teg sa mbër. yaa ngi dégg. Gamor waa la dara Modou Lo. Modou Lo sama rakk bi da koy nen na ñëw mu bëri ngóob. na Balla Gaye ñëw ma daan Balla Gaye. ñu doxal deux deux. waaw. bi kanam. bii mooy sama sixième combat.